dëgër te yàgg fa anam yoo xam ni ci la war a jaar ngir rek taax yi gën dëgër ciment nekk na jumtukaay bu am solo ñi ci seen xel màcc di ko firndeel. xam ñaari ciment yëpp baax na 42 5 32 5 mooy liggéey bâtiment yi nga gis ah, sax da sonn kon loolu moom yaakaar naa ci doosaasu liggéey waaw liggéey ci doosaam ak qualité ba na muy liggéeyee. per nag nekk lenn ci lu ñuy jëfandikoo waaye njëg gi ak qualité gi am na ci solo lool waaye mu am ñoo xam ne la ñu bëgg mooy di daanaka feer daal mooy bâtiment bi daal waaye njëg gi moom am na différence tuuti importé bi moom moo gën a seer am na someta am na local bi gën ci feer bi nag moom mooy importé normalisé doole yi daal moo yëmul bu fekkee ne moom da taxawal bâtiment te bëgg lu baax ngaa war a jël feer yu baax nga def ko mais sa doole fi yem tamit am na loo xam ne boo ko bëggee tabaxee waroo yem ki nga xam ne dafa am doole nga bëgg a comme moom ni bàyyeekoo ci Balla Sakho nekk chef de chantier. parce que soo xoolee nu ñu koy liggéey dafa am euh, ay normes quoi comme ciment dafa am comme béton normalement soo defee fondation comme fondation yii nii da nga def fer de douze comprendre ak fer de dix ñoo koy liggéey donc béton bi dafa war a doon cent pour cent ak ciment bi da def benn bourette suuf benn bourette béton ak benn sac ciment léegi loolu noonu nag mooy téye bâtiment bi quoi mais soo naree mil mu gaaw. ci décembre atum 2022 lañu rek wàññi woon njëg gi ci lépp lu jëm ci jumtukaay ci wàllum tabax waaye ñu bëri di sàkku rek loolee ñu gën koo wàññiwaat waaye maytandi di tabax muy daanu.